bismillahirrahmanirrahim ginnaaw ba nu santee sunu borom subhaanahu noo ngi julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ëllëg xaadimul Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan sëriñ Sidi Moxtaar sunu borom yàggal ko fi ba naal yi mu naalal Sëriñ Tuubaa mu eggale ko ba eggale waale naal yi ñi ko jiitu woon te ñu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Sëriñ Tuubaa نوي سانت يتم دي زيار سيري احمد مختار كليفا كيرغي ديكو سانت بو باخ سي سوني ييغا خامن يبالنا سيري ابن جيمبو مو كون الحمد لله نيغي جار سي موم احمد مختار دي سانت جابوتو سيري توبا غيب دي نيو دي زيار سيري وا كير مام شيخ محمد فاضل مكي di ko jaare ci sëriñ bu Mbakke di suñu wayjur di suñu xarit di suñu wëlëre ak délégation bi mu àndal tam mu jóge ndax ñu ngi sant ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax te ñu am délégation bu ñu def boo xam ne euh, ñu ngi ko def ci njiital sëriñ Xaadim ak euh, sëriñ Abdou Karim ak euh, sëriñ Mbaye Ndam Fall euh, ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm di nuyu bu baax di nuyu itam ni représenté le ministre de l'hydraulique ak euh, le secrétaire d'État à l'hydraulique muy euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, ak waa OFOR ñu leen di sant bu baax a baax muy joox ak duut siis di sant bu baax jox ci kàllaama bi mu wax bu rafet te ni mu ko waxee noonu la ñoo leen ci sant bu baax doon ñaan nag bala noo wéyal suñu kàddu am sunu rakk joo xam ne dafay bàyyi ko te jàppoon lool ci Maou Rahmati muy sëñ Lamine Mbàkke moom sëriñ Aliou ñu ñaan ñu jàng ñeent fukki Ixlaas defal ko ko addiya dawalal ko ko foofu bala ma mën a wéer kàddu gi jërë ngeen jëf jërë jëf xam naa waxtu wi dafa xat euh, kon noo ngi ñaan ñaan gi suñu boroom nangu ko te yool bi dem ci borom euh, ñu ngi sant suñu borom tabaaraka wa taala bu baax ci suñu maam yi nga xam ne jaar nañu fi te suñu boroom boole waa maak ñoom wala ma xamoon leen ñu commencé ko ci ki ñu tuddee bis bi tey jii muy Cheikh Mouhamadou Fadal ma nekk xale bu ndaw dem fa benn bis dugg ca kër ga fekk fa lu mat ñaar fukki 404 ca waxtu woowa bi ma waññi ko fekk naa ñaara ci des xawma ñett te lépp da koo maye bi ma duggee ci biir am bëkk néeg bu ma bëgg a yëkkati mu génnee ci baraag bi joxoñ ñaari baaraamam yu tedd yooyee maag Maamoor Saam ñoo fa nekkoon mu ne bàyyi leen fi ñoom ñaar ñaari baaraamam yooyee defe naa ne joxoñ ba ma ngi dox ba tey kon alhamdulilahi rabbil alamin ku bëggoon Serigne Touba la ku fonkoon doomu aadama yi la ku fonkoon lislaam la te bëggoon réew mi bëgg ñépp ba li ma ko waxee yaa maalikal mulki yaa man jàllaan xawadin irham jaamel wara yaa hadiyan radaa dafa mel ne loolu la doon jëfe loolu wooy nga xam ne xaadimu rasul moo ko waxoon yéene jàmm ñépp jàmm kon alhamdulilah noonu ñaan yàlla taas ñu ci barkeem di sant bu baax délégation bi nga xam ne moo ko fi teewal di ci sant bu baax sëriñ Abibu ak njabootu suñu maam Cheikh Mamadou Fadal yëpp euh, yàlla def itam ma xam sëriñ Abdou Lahad sëriñ Cheikh Gaynde Fatma boole ma ak moom mu wutal ma bourse ma jàngi moom itam bi ma dellusee mu boole woon ma ak sàmba yàlla ci affaire ndox ndax man jànguma woon affaire yooyu yeneen laa jàngoon waaye bi ma booleeg moom dafa ne ma ba may dem dafa ne ma fii nga jëm bul bañ ku la xeeb waaye bañal ku la xeeb ca loola lay jéem a dox waxtu wu ne waxtu wu ne loola day aw ci sama nopp yi ma di ko bàyyi xel kon maa ngi sant ci ñu baax ñooñu nga xam ne xam naa leen ginnaaw ba sëriñ Abdou Khadir Mbakke fa ma doon jàngee ca Louga ca kër Madou Binta mu ñëw ca kër sañ Fallou ga ca Louga fekk ma fa mi ngi ànd ak ko sant Seck may xale bu ndaw mu jox ma ñetti dërëm ma am xelum denc xaalis booba ba fi may wax yéen may sant itam di sama xel di dellu ci Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne moo waxoon ne euh, na ngeen jéem a liggéey ci ndoxum Touba ndax gis na ne waxtu woowa euh, ndox mi bari bariwul waaye yàq gi bari na mu ne na ngeen ci dimbali gouvernement bi ci gën a yaxanal ndox mi fatt bën bën yi waaye da ngeen dem ba weesu fatt bën bën yi yaakaar naa ne tey bi ñu defee ñetti forage yu egg ak benn boo xam ne ni leen ko Malick waxee ni la demee yaakaar naa ne weesu nañu fatt bën bëni kon ñoom seen wax ni ma koy waxee doomi Serigne Touba yi kenn ko ne ba nga taxawee dafa mel ne sag jagle yow dong lañ ko jagleel waaye nag boo boolee ñoom ñëpp nag dañu def une complémentarité idéale maanaam ñoom ñëpp mottalente mottale goo totte goo xam ne boo ko doon seet ci jamono luy jafe lay doon kon alhamdulilah noo ngi sant ci Serigne Mbacke Madina mi nga xam ne moo ma boolee ak sëriñ Abdou Lahad bi ma jàngee ba ñëw itam pour téere bu ñu waroon a defar loolu yëpp maa ngi ciy sant suñu borom tabaraka wa taala ci nekkoon gone mën a jonjoo ak mag ñu tedd ñooñu kon ñooñu ku ñu wóolu woon yaakaar naa ne bu la dara doyul bu la loolu doyul leneen du la doy kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax euh, di nuyu ñi fi nekk ñëpp na góor ak jigéen mag ak ndaw waxtu bi dafa xat li ñu bëggoon a wax lépp ñu ko mën a wax wante li ñu xam mooy la ñu sëñ Saali waxoon mooy ndimmal la ca fekk loxol borom waa kër sëriñ tubaa kenn waru leen a mën a assister dañoo war lii sëñ tubaa digle liggéey ak jàmm yàlla ak di jéem a mënal sa bopp ba kenn du la mënal loolu yaakaar naa ne buñ ci góor góorgóorloo danañ ko man te loolu la Serigne tubaa la sëñ Cheikh Saliou Mbacké loolu la jublu woon ci ñu fent maa u ñu ngi sant bu baax itam parce que gouvernement bi wax dëgg yàlla rawatina nag bii fi jox ñëwee ak lancé na wax dëgg yàlla ci la mbir mi gën a rataxe ay jàmbaar lañ yoo xam ne ak dut siis lu ne daj nañ ko fi jàmbaar lañ yoo xam ne ñoo ngi leen di remercier personnellement di leen sant parce que wax dëgg yàlla nu ñu war a doxale ci ay compréhension ak ci mën a suqali nit ñi assister doomu aadama yi ànd ak ñun ci ñu bokk liggéey en synergie loolu lu am solo la loo xam ne ñu ngi koy def kon maa ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax di profiter de l'occasion pour sant aussi Diène Faye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon euh, ndimbal na ca fekk loxol borom lépp lu ñu mënta def rek amul bu kenn ku ne defee suutam dëkk yi Ndakaaru ña ngay fay ndox te kenn ku ne gis na ne am na quartier yoo xam ne day manqué ndox fii nag bu ko defee bu ñu nee xéewalu Serigne Touba la xéewal gi damaa yaakaar ne da ngaa war a xéewalu jox sa moroom mu tey ndox mi am na fu muy jóge Malick Badiane leeral na def bilan bu wér a wér te man jàpp naa ne xaalis bu jëm ci Serigne Touba ku bëgg ku la ràmm ëllëg benn fifteen boo ko ci lekkee yaakaar naa la nga bëgg du am man loolu man foofu laa toll loolu laa yaakaar benn fifteen ku ko ci lekk rek maa ngi jàpp ne ëllëg Serigne Touba duñ la ràmm kon ndax sëriñ Touba la mu liggéey ak li ko dëkk bi jaral pour mu ñu defal ko waa dëkk bi loolu yaakaar naa ne ku ko xam da nga gën a góorgóorlu bu baax te lépp dangay ngay def lu xalaal def loo xam ne lu lew la gën a jàpp laxasaayu gën koo jàppale ci dëkkam bi ba mel ne màkkatal mukarama wala a munawwara kon bañ koy door a sos dañoo woote woon sëñ Birane Gueye ngi ni teew na euh, témoin la ak sëñ Matar Diakhaté sëñ Moussa Niang témoin la léegi dañoo woowoon bokk yëpp gaaral leen ko boole leen ci organigramme léegi itam dañuy dellu insha allahu bi ñu egsee fii ci fukki at yi ñu ànd ko ñëpp càmbaraat ko xool fu ñu war a dem lu ñu weesu nu demee ak nu ñu ci war a mën a gën a jàpp loolu itam bu ñu ko defee yaakaar naa ne dana baax insha allahu foofu lañu jëm kon euh, li ma ciy def mooy bu fekkee ni ko sëñ laa si waxe jëmbat nga garab ba garab gi am fukki yaakaar naa ne sañ ngaa toog ci ker gi waaye bu dee ci toolu Serigne Touba dey damay dellu ci naaj bi jëmbataat yeneen garab incha allah loolu laa fas yéene kon euh, ñu xam ne liñ doon jàngale ñu ab équipe nga fi boo xam ne mokkal nañu ko dañuy jàll nag ci li nga xam ne seen loxo jotu ko du nag ma nekk ci contrôle bi contrôle bu rigoureux incha allahu waaye nag damay jàll nag ci yeneen domaine yoo xam ne seen loxo àggu ca te lépp jëm ci ndox mi ndax ndigalal Serigne Touba euh, moom jëfe rek lañ koy war a kon na ñëpp xam ne ñoom ñoo fa nekk ni ma yóbban yónnee woon ci sëriñ si ci kilifa yu baax yi ak ci cheikh si ak taalibe yi ñu gaaral leen euh, di leen rendre compte noonu lañ may rendre compte noonu lañ may rendre compte kon alhamdulilahi rabbil alamin fasna naa jàll fa nga xam ne seen loxo jotu fa du tee nag may contrôler waaye ñoom wóor nañu wér nañu te leeral nañu te ñu leer nañu kon ginnaaw timis yi dafa jege ñu ngi sant bu baax soxna Ami Sylla di jaar ci moom di sant euh, euh, sunu mbokki jigéen yëpp sët sëñ Tuubaa yi yëpp soxna Astu Mbàkke ñoom sët sëñ Tuubaa yu jigéen yi nga xam ne jàpp nañ ci bu baax ak sët sëñ Tuubaa yu góor yi ñëpp ñu ngi leen di sant góor a jigéen mag ak ndaw kon xam naa dañuy yemale kàddu gi foofu rek ndax waxtu wi jot na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum